ginnaaw nuyoo bi yëglekaay yi nga xam ne a rot ci suba gi ah, li nga xam ne ko bëgg a faram-fàcceel seetaan vidéo bi ba mu jeex ginnaaw bu ngeen ah, defee seeni abonnement ci li nga xam ne mooy tiktok bi bu ngeen seetaanee ba seen xol sedd ngeen buruglu ndànk dem ca youtube ba ah, seetaan la nga xam ne mooy vidéo fee fa wadd defaale seeni abonnement dana jàppale Aladji Malick ci li nga xam ni moom la yëng revue de presse yooyu ñu commencé ko ak tribune sport bi nga xam ne ñëw na ci Sénégal mi nu détourné ci li nga xam ni moo nekk classement mondial ak classement Afrique kenn defu ko ku dul goney Maroc yi nga xam ne ñoom ñi ñoo détourné équipe bi nga xam ne mooy équipe bu Sénégal tribune sport moo ci ñëw lu yaatoo yaat nga xam ne tribune sport sax bari na wàll woo xam ne daanaka def na ko ci gardien sénégalais bi di Edou Doudou Mendy mi nga xam ne daanaka am na solo lool yëglekaay boobu puusal leen ma ko muy tribune sport xëccal ma wiiw sport mi nga xam ne wiiw na sénégalais nga xam ne ñoo ne fële ca la nga xam ne mooy Europe mercato bu fattataraj bin fa nar am Bamba Dieng nga xam ne ak Edou Doudou Mendy mi bëgg a jël si cëli ak Koulibaly ak ki nga xam ne mooy Pape Abdou Cissé ñoom ñett kenn kum ci mën di doon daanaka ab départ bu leer naññ moom nga gën a jege ko ak toog loolee lépp nag gaa yaa nga cay yëngatu wiw moo nu ko xamal yëglekaay bi tamit ñëwaan na ci suufu champion d'Afrique bi nga xam ni daanaka tamit mooy Sénégal Aliou Cissé kum kabam da ngeen may roofalaat wiw sport andil ma journal bi Youssou Madjiguène Youssou Madjiguène Youssou Mari Sène nga xam ne euh, journal boobu yàlla la mu andi mooy bii yi bu ngeen ko déggee mooy footballkat yi nga xam ne France la ñu juddoo ba pare belleeku nag xam seen cosaan dellu seen cosaan di ko doxal dencal ma roofalaat ma yëglikaay bi nga xam ne moo nekk wiiw sport ma amaat lu ma ci jëlaat coppatiwaat ndànk Maroc détrône Afrique loolee la nga xam ni mooy lii li journal bi yëgle ci kaw suuf ci kanamu li nga xam ni mooy suufu yëglekaay boobee classement FIFA bi démb la officiel Sénégal mi ngi ci fukk ak juróom-ñeenteelu place bi ki nga xam ne mooy Maroc fukk ak benn place bi nga xam ni loolee ang ndorteel la ci Afrique stade nag ñëw na ci stade yi nga xam ne mooy stade yi Sénégal Sénégal wala à des nouveaux défis loolee tamit nga xam ne lu am solo la bu baax a baax gone yi nga xam ne ñoo yor équipe bi loolee dana am solo bu baax a baax kii nga xam ne mooy monsieur Augustin Senghor mi ngi ci biir yëglekaay bi Ismaïla Jacob mi nga xam ne moo la ca fële ca Monaco moom it mi ngi ci biir sa mbaxloo bi andilaatal ma seulement la suufu yëglekaay bi ñu gis fa Maroc mi nga xam ne roi d'Afrique la ak juróom-ñeenti milliards yi nga xam ne kii di président fédération sénégalaise bu football ma nga xam la ni juróom-ñeenti milliards yooyee xaaj bi local ak complexe yi nga xam ne moom lan war a defar ci biir dëkk euh, bam ni booy loole am solo bu baax a baax yëglekaay yi dana dël subaat subaat jàmm wéy leen di euh, topp